guddi juróom benneel gi ci weeru koor sopp nañ ko ci julli ñaari rakka rakka bu ci nekk mu jàng faatiha benn yoon jàng xul huwallaahu ahad fukki yoon ak ñaar mel na ni ku julli ca maqaami ibrahim junni rakka mel na ni it ku julli ca jàkkay makka junni rakka mel na ni it ku saraxe junni dërëm fayal junniy te bu ñaanee xaajoom borom bi subhaanahu wa taala dina ko nangu mel ni ni ku jox ndogu xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yépp te bu faatoo ñu boole ko ci ñu dee ci jihaad ak yeneen ak yeneen mbokk yi ku ci bëgg yeneen leeral nga dari ci Xurratu Ayni bu Sëriñ Suhaybu bu Mbàkke